guddi moo ëpp accident yi am bëccëg ñu mën a wax. Mhm. accident yi am ci tali yu xat yi moo ëpp accident yi am ci autoroute yi mais autoroute sax ñu ëpp ay accident donc laneen la. Mhm. ci wàllu comportement ci wàllu discipline. Mhm. loolu nag ci ñoom lañ koy xaar début bi. beneen bi ci des muy wàllu porte bagage waaye xat yi loolu gént la wala lan la yow ñiy jël bus yi ñëpp mooy ñu amul oto. bu ñu ñëwee nooraan si Dakar di ñibbi jënd benn fauteuil jënd benn lal jënd benn matelas jënd benn valise. mais fu ñu koy dugal. Mhm. dañ koy jëlal place wala déet. loolu njuumte la gis nga nguur du jël dogal ci émotion ak précipitation. Mhm. njaayum pneu bi la même chose tey bu ñu nee pneu importe dootu ñëw Sénégal li fi nekk bu ñu ko vidé di nga gis ko taxawal otomtu am pneu mhm. mais ñoom daañu am njëgu pneu ñoom daañu xam fa la ñuy retrouver pneu gis nga booy jël yenn dogal da ngay xool tolluwaayu vie sociétale peuple bi nga jiite ci wàllu am am ci wàllu sociologie ci wàllu euh, même koom bis yooyu tey bu ñu évaluer manque à bi ñiy wax nguur gi bu ñu reculer ci benn pression kenn mettre pression nguur gi man tey su ma waxee waxee parce que à chaque fois ñu wax amul lu ma déggul ci chauffeur yi bi may demander pour ñu def ay montage mais dama ni grawul bis bu ñu comprendre dinañu xam ne man contre ma leen te tey jii nii décision bi ma nekkoon doon ko wax moom laay prôné ba léegi parce que avantage montage du doox rek corruption avantage bi mooy dafay intimider kiy dawal ba bu seenee monta montage dina takk seen yo mhm. bu seenee montage du yor téléphone bu seenee montage euh, du accès de vitesse mais boo déparé Dakar ba si kilo bi accident bi amee mhm. gisoo benn montage ci yoon bi loolu nan la tudd mhm. loolu lañu ñu war a xool ba noppi baneen bi ci des ñu visite technique yi ñu wax mais visite technique bu jafee tey ba ñuy exiger bus yu ñuy jógee ay Fongolimbi ñëw Dakar def ay visite parce que ñoom ñoo ko sabab ñoo fi commencé loo xam ni amuñu ay moyen yu ñu ko mën a tase ci réew mi. Mhm. te Sénégal dong du Dakar mooy seen centre bi ñu defee visite technique. digg na fi ba tàyyi installation yeneen centre mhm. lépp daanaka dara benn taxawagul mais nga di bus bi nekk Fongolimbi ñëwal ndakaaru def visite technique soog a demaat mais loolu genre poñe sa aw askan la. Mhm. poñu sa aw askan la gis nga nguur du do du jël dogal ci wàllu émotion billahi tey bu ñu nekkoon ci doxalin boo xam ni méngóo na ak li nga xam mun na wàññi accident yi man maay jëkk nekk ki ànd ak ñoom di xeex ak lu ma ci góobi transporteurs yi jaral na ma ko mais cette fois ci transporteurs yi fi ñu jàpp ñoo nekk ci dëgg nguur gi nañ teyluwaat bu ñu topp émotion accident bi metti na mm-hmm. certes metti na mais booy jël dogal ñi faatu génn nañu àdduna ba noppi. Mhm. mais ñi fi nekk di dund nag. Mhm. da nga leen di naal comme citron. Mhm. non non nañu xalaataat ci nan la ñuy organiser transport bi. bàyyi fi porte bagage yi yokkaat euh, heure bi ba ay minuit et puis contrôler xam nga leen dong moo leen dong dong dong dong moo mën a rég moo mën a réglementer transport bi. muy kenn ku nekk boo defee njombe ñu sanctionné la selon njombe bi nga def ni mu toll. mais da nga def njombe bu toll ni ma ko waxati. ñu tëj la benn weer wala 15 jours mu néew yëruma kenn kaso. Mhm. mais wallahi bu doon am ay sanctions normal yu ànd ak rigueur kenn ku nekk di nga xool ni ngay def temaat xaj da ngay taxaw sa oto. Mhm. benn oto da xool ginnaaw ñu mbëkk la ci maa tey. gendarme bu ñëwee xam nga lu wax du mujj fenn yow bu la assurance fayul du mujj fenn alors que yoonu Sénégal waaj na. destruction des biens d'autrui boo yàqee alalu nit ki ci accident même bu fekkente ni bi code de la route topp yow oto bi mais loi may na la yow nga topp ko ndax dafa yàq sa alal mais tey boo ko toppoon du mujj fen yooyu la nguur gi war a régler mhm. ñu discipliner ni ci kaw tali bi ndax dañuy xaar ay sanction fii ak amul sanction mais bëgg a tawaxal waa Sénégal yëpp ci ay porte bagage rek ay ay voyage 23 heures euh, euh, euh, Léopold résistance bi commencé ndax nguur gi bi la yoon itam du résistance jàpp ne que c'est une résistance boo xam ne qui n'a pas droit d'être mhm. parce que la plupart du temps ñu génnee ci ay occasion yoo xam ne ni plus d'une quarantaine de personnes ñoo décédé c'est pas une chose boo xam ne ne dañ koy jël ñu tegee ko loo xam ne ne lu yomb dañ koy toog xalaat Mm-hmm. ñuy échanger ñu woo ñi nga xam borom xam-xam yi ñu woo ñi nga xam ne ne ñoo di sëriñ si ñu toog ñu mun a waxtaan ñu trouver benn benn benn consensus boo xam ne ne dinañu permettre mais boo xoolee Sénégal ci ay année quatre-vingt ba léegi daanaka li ciy dee ci tali bi dafa bari lool il faut ñu ciy mun a di addu que nit ñi tamit c'est un problème de comportement également mhm. parce que da ngay dem dans les pays européens mais la plupart du temps fi ma dem man la plupart je vois rarement ay accident da ngay gis ñoo xam ne c'est Israël da ngay gis sax ñoo xam ne ni amuñu sax priorité mais dañuy taxaw may kii nga xam ne ne moo amul priorité bi mais au Sénégal c'est ça c'est que soo xoolee tey jii il y a eu des personnes qui sont décédées mais forcément il faut ñu def benn introspection boo xam ne ni dañuy mujj jël jël ay mesures yoo xam ne dina atténuer l'onde de mu mais ñu bàyyi nit ñi ñiy dee comme ça nii parce que état bi buy ne nit ñi ba ñuy di teg ay li nga xam ne ne day ëpp parce que poids bu nekkee ci kaw oto oto bi bu demee ba poids boobu nga xam ne ne daf ko déséquilibré mais ci daanu lay comme combien de fois on a vu ça ci télé yi mhm. donc il faut dire ne que état bi day sàmm bàkkanu ñi nga xam ne ne ñun ñoo leen fal pour ñu sàmm suñu bàkkan mhm. noonu la war a demee mais waxtaan dafa war a am d'accord naa ne waxtaan dafa war a am doo tëb rek nga jël benn décision décision bu ñuy jël dañ cee war a boole ñi nga xam ne ne ñoom ñooy chauffeur si ñi nga xam ne tamit ñoo di les force de l'ordre tamit naka la ñu war a taxawee ci yoon bi pour éviter que yenn yi muy am mm-hmm. donc noonee la war a mun a dem mais du loo xam ne ne dañuy jël à la à la sauvette comme ça rek ne lii la ñuy appliquer mm-hmm. non dañuy def ndànk-ndànk waxtaan ba am benn solution ñu jël loolu ñu teg ko ñëpp jaar ci mm-hmm. mu ngoog euh, Léopold ñu wax ci sàkkuteef bi nga xamante ne directeur bu centre national appareillage orthopédique moom la euh, am euh, muy Jibril béy muy xam ni Sénégal ñaari professeur képp lañu ñu am ñu spécialisé wu ci médecine physique ak réadaptation muy lim boo xamante ne dafa néew lool bu ñu nemmeekoo li nga xamante ne moom la ñuy soxla ci prise en charge doomu aadama yi amee laago boobule muy sàkku itam ci ñu yokk personnel bi waaye itam tabax ay école bu ñuy jàngalee métier rééducation ak réadaptation invitation tey ci suba la woon euh, ci euh, cérémonie ba ñu amaloon ca centre nationale euh, bu appareillage orthopédique ci teewaayu Alassane Balde la woon ak El Hadji Diène fexe ba gën a yombal seen dem ak dikk jëm ci way laago yi jaare ko jaare ko ci ñu gën leen a jàppandal lu jëm ci wàllu prothèse bokk ci yenn ci semb yi nga xamante ni moom le directeur centre national d' appareillage orthopédique daal di taxawee moom moom la nag jàpp ni dafa jot ñu méngoog ni àdduna di doxee jamono ji ci wàllu xarale mujj yi delluwaat ci appareil local mooy artisanal nga xam ne suñu borom xam-xam yi nekk Sénégal ñoo ko créé terewul am na appareil yoo xam ya nga xam dafa am ay genoux intelligent bu ñu la ko tàggalee sax mën nga daw nekk athlète waaw yooyu tamit sénégalais yi ko mën a fay dinañ leen ci jàppale ñu am ko ci boobu leen ndaje bi mu doon amal nag ca makkaanam moom moom leen nag sàkku na ñu bàyyi xel lu jëm ci ñàkk personnel soignant bi jëm ci fànn googu ne Sénégal sooxe na ci lool ba tax sax mu jàpp ne war nañoo xalaat sax tabax benn école jëm ci métier yooyee professeur Ngor mi taxaw ak beneen colonel bu nekk principal ñooy spécialiste en médecine physique et de réadaptation loolu ne na loolu ci Sénégal ci wàllu tam bëriwul boo demee région bu Ziguinchor ay ñaar nga fay fekk ñett. ci plan stratégique 2022 2023 bi nga xamante ni moom la ñu naal centre bi nag nattal boppam nii ci ay koppar lu toll ci ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent ci ay millions jàpp na loole bu yembee dana tax centre bi gën a mën a taxawu ñi nga xam ne ñooy dund ak jafe-jafe jëm ci fànn googee. mooy sàkkuteefu kon directeur centre bi Léopold. waaw parce que xadi soo xoolee ba baax peut-être que ñoom ay handicapé lañu mais en réalité seen bopp dafa fees dell ak i xam-xam mhm. donc euh, il faudrait que ñu leen di toppatoo normalement utal leen ay prothèses c'est une très bonne chose qu'il faudra faire et surtout si c'est électronique parce que c'est des gens yoo xam ne ne dañoo bokk à cent pour cent dans la société et ils y participent soo xoolee sax ñoom ñooñu gën a doon ay ñi nga des personnes disciplinées mhm. donc euh, je crois que état bi euh, peut-être que dañu am ay problème mu dànk ak problème yoo xam ne ni pour mun a dox mais ñooñu suñ leen tegalee ay orthopédique ak yooyu ñu mun a déplacé wu donc ce serait vraiment très bien parce que ñu leen seetaan ay doomu réew mi la ñu te dañuy dem di jàngi dans les universités et dans les écoles donc ça veut dire ne que il mérite de la nation mm-hmm. donc forcément il faudrait que ñu leen di gëstu te état bi bu ko defee loolu c'est une très bonne option ñaari professeur kese yu spécialisé ci wàll wi Mansour ci réew mi yépp lu mu doon lu néew ni ñu ko waxee. et pourtant bu neexoon état bi du yàgg dara ñu mettre ay fukki fukki fukki. parce que dañu leen di mettre ci benn condition rek. bu ñu jëlee ñenn ñu nekk ci biir secteur bi. ci ñi leen di jàppale ci wàllu liggéey bi formé ci ñoo xamante ni du yàgg dara Sénégal bari lekk lool. et puis centre yi dafa am solo. Mhm. man jamono yi ma nekkee ndaw ay quatre vingt quinze quatre vingt seize euh, amoon naa ci expérience yu bëri ci ni ñuy liggéey tànk yooyu parce que man sama benn mag yal na ko yàlla yërëm bu doon liggéey ci centre orthopédie bu Thiès. fi ñuy defaree tànk yi ak yooyu bu mu ma ci doon expliquer lu bëri pendant ñetti at dama fa doon dem di ko di ko di ko fréquenter ko fa fekk mais nga gis valeur bi ñu am ñoom ci wàllu société bi donc bu ñu demee ba nga xamante ni bii fi jamonoy doxi tey euh, segam bu njëkk boobu classique boobu sax mm-hmm. moom moom matewul sakka bi fi jamono toll muy bu électronique bi nga xam ni pratiquement day xaw a mel ni cër bi sox ci yow bu fekkee manqué na nga benn cër donc jàpp naa ni war nañu ko gën a dooleel xam nga Sénégal nag bu dem